nawet bu Sénégal nag calte gu jéggi dayoo moo am ci marché yi nga xamante ni ñoo nekk ci ndakaaru waaye bi ñu demee ca marché bu Gueule Tapée daal dina firndeel boobee mbir. gis nga de marché bi noonu lay faral di demee bu tawee moom affaire bi yëpp day jaxasoo oto yi ñi si mbedd bi ak yooyu noon gis nga ko gis nga ko sa bopp waaw ak bi ak marché bi nu fu mu toll ni tamit dafa commencé sonn daal. waaw dañ ko war a defaraat daal ba mu méngoo ak jamono waaw marché bi moom su taw bi tawee moom marché bi moom day salté moom day taa ndox bi day taa yëpp ki naa ne sax dama mu ñu ñëw dañuy ñëw sax taxaw fee loolu du yoon ke marché bi fii moom marché bi daal dara baaxu ci dara dara dara ke gars yi dañuy waxoon fii marché bi ni ñu ko defar mais defar ñu fii dara su moom ndox bi day taa fii yëpp ki naa ne dama mu ñu salte bi métti rek métti xam nga salte neex te dundee parce que gis nga ko kenn du leen wan amul lu ñu leen ci expliqué la amul loo xam ne yéen a ko gisal seen bopp nii amul leen loo xam ne defal nañ ñu ko fii. bu ñu sukkandikoo ci kàddu jaaykat yi ak jëndikat ya faree ca boor boobee ñu ngay wax ne nguurub Sénégal nag jàppalewu leen benn yoon pour ñu jëlee fa boob boobu calte. bon ñu ñun jéemuñu gouvernement bi kiiwuñu dara si ñun waxuñu dara defaluñu dara. kon moom defaluñu dara. ñun suñu yëpp ñoo ko defar gouvernement defaluñu lenn fii. non mos ñu ñëw fi moom mos ñu ñëw fi depuis taw bi ba léegi moom mos ñu ñëw fi daaw ba léegi moom gisuma kenn mu ñëw fi di wax ci marché bi. non pour instant instant yi moom doo gis kenn moom kenn kenn gis ni mu ñëw fi moom di defar ni instant yi waaw man moom gisu gisaguma ko gisuma ñu ñëw pour régler ko ak yooyu noonu bi mu taw nawet bi mu ñëw ak léegi gisuñu ko moom ko dëgg yàlla. jaaykat yi sax ñu ngay xam ne ne ñoo ngi def seen i pexe di dajale di xool naka la ñuy def pour jëlee ci salte boobu. ñun bañ nañ ko place boo dem bañ na ko ba dafa teg saako mbali itam bu ñu fee bu ñu liggéeyee ba ngoon ñu jël benn xale mu jël ñun jaay la ñu ñu dem sotti la ñu ko buñ ko sottee dañ koy fay parfois da gis xale yi bale fii ñu fay ko ku nekk ay cent franc cent franc ñu fay xale yi pour ñu bale fii pour mu set gisoo ci terrain bi nii ñoo koy bale xale ñoo koy bale jëm après ñu fay ñu fay waaw ku nekk cent ñu fay jëm tul ñu mbalit bi kon nag jot na nguurub Sénégal daal jël ay pexe ngir jële fa calte googee